amiin yàlla yërëm leen. amiin. Ablaye Diagne joyeux anniversaire sama xarit boobu bëgg ma lool joyeux anniversaire. alhamdulilah suñu Malick Ndiaye Cambérène chauffeur camion maa ngi lay nuyu. suñu suñu suñu directeur bi tamit euh, directeur wu yaayam di Moustapha Guirassi. walaay ndeysaan ñu ngi koy masaw di ko jaale tamit xibaar bi nga xam ne moom lañ yeewoo. nañu démb démb ci guddi waaw mm-hmm. démb ci guddi nañu sëfëram bi dafa mujj làqu mm-hmm. Mm-hmm. vraiment nekk na loo xam ne nag euh, lu méttee méttee waaw lay ndeysaan métti lu metti lu métti lay ndeysaan nattu yàlla daal xam naa ne daal <coughs> yàlla daal xam naa ne daal mënta weesu metti métti na torop torop torop torop torop ñu yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin yaa rabbal aalamiin waaw muy Grace Dey ku baax ku yiw ku dal sell ndeysaan xam xam adduna nekk jàmbaar yal yàlla yëkkati ko ci bu gaaw a gaaw ndeysaan billaahi ko nee naa ko juddu juddoo ci fi nga juddoo mm. mel ni nga mel yombul juddu fekk sa baay nekk ministre am lépp nga judd ci lépp. Hmm. jël xam-xam def ko muy sa privilège. ba yow nga nekk ministre. Hmm. continuer jël yar def ko muy sa privilège. Hmm. jël sa bopp soppi ko jaamu yàlla ku la gis xam ni da nga sell. ah c'est pas donné à tout le monde de. <laughs> la de ah. moom. yal ko yal na ko yal na ko yal na yàlla fëgg boppam. amiin amiin. am a dëgg dëgg fa yàlla day Moustapha Guirassy day. ah daal bokkul daal ci politique yi ñu naan àccam. vraiment mm-hmm. déedéet. mukk mukk mukk. kéem taan la métti na nag métti na métti na métti na métti na dogalu borom bi moom. Mm-hmm. natt jaamam kenn mënu ci dara. Mm-hmm. doy na waar daal. doy na waar doy na waar doy na waar. ak ñu woon na natt. cay waay euh, kii moom alaaji mi ngi tudd Baye Diop euh, dañoo sàcc L200 ah waay déet waay. bu ñuul démb HLM Paris Guédiawaye mu waay. Hmm. Toyota Hilux DK 97 41 AL képp ku gis benn l